fanaanee naafila maanaam taxaw guddi yëpp guddi gu ne nga fanaanee naafila ba bët set léeg-léeg nga jël saa soo xam ne ni da ngay fàttaliku dee mu wóoral ne mi ngi ci sa kanam te mu amut fenn foo daw ba ba doo dal ci kawam wala ba du dal ci sa kaw amut nee na loolu moo gën fanaanee naafila guddi yi kadaka dikrul mawti afdalu lana min alqiyaami fi layaali zamana waxaat na ci xikma ba tey ne adduniyaa mamarrun wal axiratu hiya al maqar adduna de fees di jaar di jàll la saxuwaay bu mooy ëllëg yowmal qiyaam ëllëg alaaxira te loolu alquran wax na ci lu bari lu dul jeex wal axiratu xayru wa abuqaa te it moom sëriñ bi nee na deekat ah bu ngeen ko bàyyiwul xelit mooy li leen gën a jege ndax moom mi ngi ci seen kanam aynama takunu yudrikum mawt wala kuntum fi burujin mushayyada dee moom boo koy daw sax day mel ni yaa ngi daw di tase ji ak moom moo tax sëriñ bi ne mooy li leen gën a jege mooy li gën a jommale moom dee te gën a metti wex mooy li gën a wex mooy li nga xam ne nii wextan wu mel noonu kenn du ko mos ci ak dundam dee lu métti la mat nay bàyyi xel bu baax a baax te it nee na e, buy ñëw da leen di bett te kenn mënu koo daw almawtu aqrabu wa adha wa amar wa baxtatan yaati wa ma anhu mafar moo tax am na ko ma a ñëw ci moom ne ko man de mbàkke dañoo nangu sama kër sëriñ ku kër mu ne ko waa mu ne ko man de amaguma kër ne ko ñëwal ma wax la ne ko nit nit ñetti dal la am bu jógee ci ñetti dal yooyu nag lay doog a dem këram dal bu fa nekk nag bu fa nekkee ba xajutu fa day jàll ca dal ba ca des ne ko dal bu njëkk mooy biirum ndayam nit bu nekkee ci biirum ndayam ba xajutu fa day dem ci àdduna bu nekkee ci àdduna ba xajatu fi mu dem ci bàmmeelam bu demee ci bàmmeelam ba xajatu fa lay doog a dem këram yàlla na ga ko gënal nag muy àjjana ndax mook safara rekk fa nekk kon mbokk yi lu mat a bàyyi xel la ah, a Cheikh Ibrahima Fall daana wax ne na ngeen tëppax bala ngeen a tabax na ngeen fexe ba tëppax mi muy bàmmeel am na borom xam-xam bu ragal yàlla bu bindoon Salih ibn Abdul Aziz Salih ibn Abdul Xudus wax yu am solo laaj bu am solo mu tontu ko tontu lu am solo daf koo wax ne ko almawtu baabun wa kullu nnaasi daaxiluhu fa layta baax baadal baabi maddaaru dane ko dee daal gis naa ne bunt la boo xam ne nii ñëpp fay jaari ni ñëpp ay dugg ci bunt bi kenn du ko échappé ak neexoon nag ma xam bu ma duggee ci bunt ba fan mooy sama kër ndeyjoor laay jëmam càmmoñ ak fuy sama kër daal daale koy laaj laaj boobu yi salim na abdul tontu ko ne ko addaaru jannaatu adnin in amilta bi ma yurdi l ilah wa in xaalafta fannaaru huma mahallaani maa linnaasi xayruhuma fanzur li nafsika maasa anta muxtaaru ne ko ah kër ga de lay doon bu fekkee daanga nga jëf lu sun borom tabaraka wa taala gërëm bu fekkee daawoo ko def nag geneen kër rek fa nekk muy sawara yàlla na ca la musal mu ne ko ñaari barab yooyu daal la fa nit mën a dem muy ajjana wala sawara yow nag yaay xool boo ci tànn kon nag mbokk yi alxuraan yee nañu lu bare bare bare bare bare ci mbirum ëllëg xadis yonent bi sallallahu alayhi wa alihi yu dul jeex ci lu ñuy fàttalikuloo dee ak ëllëg Sëriñ Tuubaa sunu yaakaar moom ay jëfam ak i waxam ak i meloom ak i bindam foo ci dem sa xel ci ëllëg lay nekk danga xam ne fii fu dee fi eh, sag fu dee fi fàggoo la dundub ëllëg waaye saxuwaay ba ak nekkuwaay ba ak kër ga mooy ëllëg kon lu àdduna niru niru niru lu eh, neex te neexut sax da koy niru lum niru niru lu rafet ay xoy-xoy la ay nax la bu mu ñu yàqal mukk dunduk ëllëg gi nga xam ne nii moo moo di dund ëllëg tamit mooy saxuwaay ba nañ ci bàyyi xel yàlla na suñu borom defal tawfiq ba waxtu wu nekk sunu xel di dem ci dee ñoo ngi fàttaliwaat mboolem mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi liggéeyub daaray Hikmatul mi te lépp jëm ci jàng ak jàngale ak yare ak dimbalante ci sunu biir ku ci bëgg a bokk wala nga bëgg cee def dara wala nga bëgg cee xam dara nga woote ci 77 633 77 56 wala nga woote ci 77 693 72 55